Thank you.

Babacar. moom ngay jege jéem. waaw kër Ndiaye kër Ndiaye moom ngay jege. si ndàkkee. looy def live. live Babacar live. mooy mooy suñu lay jaay li suñu lay jaay Wait, wait, wait.

Kabale! Kabale! Thank <laughs> you. ba

may leen ma dem ci kaw. ca kaw dama ca kaw baax na trop. live live live live.